bu ñu génnee ci loolu man dama jàpp ni kenn ku nekk ci ñun kuy leader war nga ànd ak tey ak dal d'accord naa nga exprimer sa frustration dégg naa ñu ne Ousmane Sonko dictateur la dafa génne nit ci ci groupe WhatsApp bi leader bu ne dafa mer amul lu muy def lu dul bind naan l'ancien pensionnaire de Rebeuss voleur de riz et de mille dama lay génne ci groupe bi duma ma ci waxaale parce que c'est incorrect kooku démb ak barki démb xama woon loolu ci moom bu la defoon deuxième place nga ne wu waa ji mooy waaja defu la foofu nga dugal di saaga ma génne ko ci groupe bi te ku fi saagawaat ma génne ko ci groupe bi amul luñ ciy xaar donc groupe bi c'est un groupe ouvert débat yaa ngi ci yum gis na ku nekk ngi wax loo xalaat avec de moo yenn saay sax truc mais ay xaste ak ay saaga xaju fa groupe bi man maa ko créé ku ci wax lu dul noonu dama ko ciy génne et je l'assume alors